accréditation yi moom euh, taxawaay bi euh, mi ngi nekk rek fexe ba gunge journalistes yi ci nu ñuy amee badge yoo xam ne dina leen permettre ñu def seen liggéey ni mu waree dina leen permettre itam ñu am accès ci fi nga xam ne ay bërëb la yoo xam ne gis nañ ni xëy na ñëpp duñ fa mën a dugg loolu nag euh, journalistes yu bari dañ koy soxla nu muy tëddee nag mooy dafa am plateforme boo xam dañ koy ubbi bu desee ay un mois ñu envoyé ñëpp email wax leen pour ñu bindu laaj e-, e-, également nombre de badge yi ñuy soxla donc plateforme boobu dañ koy mettre en ligne su ko defee ñoom ñëpp ñu mën a def seen inscription léegi ñu soo ko def tri bi donc euh, su ñuy def tri bi également dafa am ay critères yoo xam ne moom la ñuy sukkandiku rek. bon xam nañ Sénégal itam euh, yenn organe de presse yi fi nekk yi nga xam ne xam nañ leen bu baax waaye itam fii ci Touba am na organe de presse yoo xam ni euh, ñi ngi fi que ce soit muy màggal wala après màggal ñi ngi fi di di liggéey sëriñ bi ñooñu aussi dañ leen di bàyyi xel bu baax euh, boo xoolee ren ci nombre de demandes bi ñu am mi ngi toll ci mille sept cent et quelques demandes yoo xam ni ñi ngi war a cinq cent demandes. donc entre mille cinq sept cent et quelques ak cinq cent am na différence de mille deux cent donc mille deux cent yoo xam ni peut-être duñ mën a am ci accréditation yi loolu nag liñ ci def mooy après dañoo vérifier euh, ñi demandé ñëpp est-ce que euh, ban nature organe lañ yor moo xam télévision la moo xam rajo wala presse en ligne mais gis nañu li ci gën a ràññeeku presse en ligne bi la parce que jot nañ ci lu tolloog neuf cent demande loolu nag li koy justifier mooy xëy na dañu nekk ci monde boo xam ne ci dafa digital wax dëgg yàlla donc c'est c'est très normal waaye nag ñan ñooy demander ñooñu itam dañuy jël ordinateur xool ku si nekk ban organ nga yor euh, lan mooy sa ligne éditoriale ñu ñu vérifier ko def vérification yëpp am na si ñoo xam ne seen site du dox ils sont am na si ñoo xam ne seen site dina dox mais nombre d'abonnés bi ñu yor c'est très très peu il sont bon ñooñu aussi dañ leen di jégal donc ren dañoo favoriser ñi nga xam ne am nañ plus de huit cent mille un million ba cent mille euh, abonnés waaye nag dañuy xool aussi contenu ligne éditoriale ba xam yow li ngay def méngoo na ak li ñuy def ko defee ñu mën la accrédité waa ci tënk daal mën naa ni liggéey bi noonu lay doxee bu ñu defee trip ba noppi nag ñu envoyé des mails pour joxe adresse bi joxe nombre de badge yi ñu la accrédité wax la itam fan nga ko mën a jël si ak boo koy jël si kan nga mën a woo donc information yi nga xam nit ki daf la waroon woo en tout cas di la ko demander dañuy fexe nga jot ko en un coup. pour le moment loolu nag c'est grâce euh, ak secrétariat général bi ñu nekk nii nga xam ne sëñ Abou moo ko jiite ak équipe am wax dëgg yàlla ren pare teel na ñoo pare ci Badji presque une semaine avant euh, ou dix jours avant édité nañ Badji yëpp ba ba teg ko donc euh, probablement les années à venir incha allah probablement yenn bat yi xëy na sax dañ ko mën a joxe fi seeni ci siège yi wala à Dakar ou un peu partout